Wally Wally Wally Wally Abdou Salam a ngi nii Touba laa jugee. Wally yow xamante lan man ak yow. Wally na nga jaana ju tudd fekk kapoo jaana ju tudd fekk kapoo. Wally man la Modou Sow. Modou Sow jaana ju waaw dugal waaw c'est bon waaw c'est bon. balaa ko balaa ko. c'est bon waaw. waaw jëlee ko jox. waaw c'est bon. c'est bon. c'est bon ñëwal Bago Bago ñëwal Bago. Bago ñëwal. ñëwal ñëwal. ñëwal ñëwal. Bago ñëwal. ñëwal. Bago ñëwal ñëwal ñëwal. waaw. wali wali wali wali Abdou a nii Touba laa jógee mais xamante lan man ak yow. wali Seck tubaarkalla macha allah day ju tudd fekk kapoo jaana ju tudd fekk kapoo. wali man na Modou Sow. Modou Sow Abdou Salam a ngi nii ju tudd fekk kapoo. wali Abdou Salam a ngi waaw dugal waaw c'est bon bon. balaa bon waaw. bon. c'est bon. c'est bon ñëwal Bago Bago ñëwal Bago. Bago ñëwal. ñëwal ñëwal. ñëwal ñëwal. Bago ñëwal. ñëwal. Bago yàlla